kaw parrainage yi également. ah parrainage parce que am na ay cas yu ñuy par exemple poster Serigne Mboup sur cas euh, euh, parrainage yi mu yóbbu woon ñu ne ko validul ba mu dépassé. recours on lui a on lui a dit que dafa amoon problème de vérification et tout est ce que gisoo ñu. war hmm, très bonne nouvelle affaire daaf et tout pour nous xool réellement sax un problème logistique et tout parce que c' est pas normal. c' pas normal ñu dem déposé nga ne ko loolu baaxul bu ñu andiwaat les mêmes choses c'est pas normal. une deuxième revenir euh, où, aussi avec j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut voler tes euh, <laughs> parrainages et tout. après voilà. après le selon vous c'est euh, question bu dire bi mooy affaire parrainage bi soit comme beaucoup de pays démocratiques le font. Euh, donte won sax man nak and na ci ne ñu yombal euh laaj pal mo xam maire wala député wala président parce que ñett yoy à peu près moy pal yi xam nga yeneen yépp c'est le président qui nomme au poste civil et militaire mais ñett mom euh nit ñi ñolay lay euh, élire ginnaaw yàlla euh, donte won pour man warta yomb donc war nañ trouver euh nuñ koy euh défé ba nga xam ni du ku mu neex nga wut say nit wut sa xaliss ni war mëna mën nekk suñu maire wala suñu député wala nekk président day bari ay manipulation yu ci mëna a aju moo tax man fan yi maa ngi doon réfléchir d'ailleurs ci ay critères eh, par exemple pour man koo xam ne da nga bëgg a nekk député wala maire wala président mais jàpp naa ni bokk na ci critères yi ñu wala tegal mooy d'abord nationalité unique sénégalaise ah oui réewu Sénégal nga war a lijjanti waaw nationalité unique sénégalaise beneen bi mooy comme politique nga koy jaaree war nga prouver que nous avons ngi def ay activités politiques au moins pendant un an def nga congrès def nga activité terrain mais quoi xoolal sama genre yi à en deux mois des élections nit très créer partem la coalition de wuti législative législative la mairie wala le président pour man day yomb bu fekkee politique daf ko yitteel dëgg war na déjà ay activités politiques au moins pendant un an nous savons que réew mi yitteel na Mais mi ngi wax ci affaire politique di def ay meeting di bind ay document naan Sénégal lii laa ci bëgg et cetera et cetera bu dee maire bi tamit muy wax mairie bi lii laa ci bëgg et cetera mais juste à quelques semaines nga dajaloog ay ndir rek diaspora bi yëpp ñu yónnee la ay million naan nañ yónnee ay oto pour nga nekk maire wala pour nga nekk député wala nga nekk président ça peut être très dangereux pour un pays. gis nga même ay États-Unis les grands électeurs ah bi kon laaj na ñàkk donc il faut ñu trouver équilibre entre àq yelleef ku nekk. ci euh, am sa parti politique ci compétition politique ak tamit ñu sécuriser réew mi aussi ba ñi nga xamni ñoy nek en compétition moo am tamit ay critères yu tax ñu ñu sécuriser euh poste électif yoyu euh, ñu rassurer ñu tamit ci ñi ci wara jot loolu man c'est important euh li nga wax tamit sur le plan tam technique affaire cuune ñu bayiko affaire cuune ñu bayiko ko fichier électoral bi ay milliards lañ ciy def chaque élection dugna fi jaar na fii war nañ ko defee façon boo xam ni warul am ay dañu amoon confusion fii loolu c'est pas normal kooku la ci wax beneen bi aussi mooy man li ma gënal te loolu moo jaadu ci démocratie gis nga démocratie dëgg dañu war a fexe ba compétition bi ñi bëgg a bokk ñëpp te matal seen dossier euh, bokk ci kon buñ jéem a tànc kenn dañu war a bàyyi compétition bi loolu mooy tax sénégalais yi xam euh, ku nekk la mu wax la mu bëgg ci réew mi la mu bëgg ci gox bu dee mairie la la mu bëgg ci assemblée nationale la mu bëgg bu nekkee président mais jéem a ci ay nit ba ba ñu bañ a bokk loolu du yëfu gor te du yëfu euh, démocratie mais en même tamit la war a ba bokk bul cuune cuune lu ba bañ koo matal boo ñëwee ñu la sa dossier matul nga ne damay xeex wala damay tànj réew mi euh, dañoo bañ ma bokk waaw loolu tam c'est pas responsable donc mais pour man nañu xajal ñëpp ba dossier bi ngeen mujjee wax ni ba ci c'est une très bonne nouvelle Euh, que sëñ bu bokk Sénégal yi dégg li muy wax ñu ni neen la lan la programmé lan la bëgg su demee assemblée nationale ñu bàyyi ko mu wax buñ ko voté mu dem nekk député ñu nekk député fii dañ ko gën donc euh, beneen bi mooy que soo soo soo soo xoolee li ñuy wax ni actuellement liste yeewu bi dakaar ak euh, benn Bokk Yaakaar et cetera et cetera man li ma favorable mooy que nañ fexe rek ah ba li nga xam ni moo indi problème ba liste bi ñu bañ koo accepter ñu ñu permettre ñooñu ñu corriger ko de façon correcte te ñu bàyyi leen ñu dem ci compétition bi loolu moo ma gënal euh, ñu tere kii euh, xatal kële bàyyi kii mu jàll ban ndam moo am ci gañe boo xam ni da ngaa tere ñeneen ñi bokk kooku du ndam sur le plan démocratique kon sénégalais yi dañoo soxla offre politique nañ leen bàyyi ñu def seen offre mais quand même tamit offre boo gis dañ koy réglementé amul benn pays ci monde bi boo xam ne da ngay fàqee fa la jóge ñëw teg dossier daal di dem ci élection loolu tam amul fenn il faut pas aussi euh, que ñu déconne hein. donc loolu c'est une très bonne nouvelle et que euh, affaire yu cuune boobu sur le plan administratif nañ ko teg fële de côté parce que mën na nekk sax de bonne foi effectivement dañoo def erreur mais mooy tax crise am mooy tax citoyen daal ne ñii dañu bëgg a tappale te fekk sax problème technique la mais am na ci foo xam ne nag amuloo droit am problème technique amulo ci droit wala bu amé tamit war nga mën a clairement wax ne problème bu la bett la bu la ëpp doole la voilà kon soyons sérieux hein on manque de sérieux et de rigueur et de responsabilité dans ce pays là La euh, professeur Amsatou Sow euh, Sidibé li may li may mujjee ci moy li lu fi jër dem ay tribunal man loolu moy sama xalaat déjà c'est vrai que nak nit ki bu frustré mëno wax à sa place mën nañu imam Kanté non bu fekkoon non lañ ko def mais je me dis que déjà Pape Djibi Fall xale la buy doog a dugg ci affaire politique mën na am mu def erreur ci affaire parrainage yi Amsatou Sow Sidibé eneem la nekk eh, nit ku respectable ci réew mi nekk prof de droit eh, yàgg ci langue politique bi man yaakaar naa ne Pape Djibi Fall bu fekkee am nag moom malentendu eh, bu doon man damay jàpp ne Pape Djibi Fall dafa def erreur d'appréciation wala équipe ñoo gérer parrainage bañ cee comme na daf ko jox pour man koy comme magam la ne ko rek attention lii erreur la surtout que Pape Djibril Fall li mu wax moom ko professeur c'est important comme moom moo yaakaar dara ci xale bi te njëkk ko ci politique ba ñëw ci tamit mais bi ak tribunal euh, sur le plan pratique politique yaakaar ma ni lu rafet la et que moo gën euh, donc Pape Djibril Fall aussi lépp lu mën a def rek pour rassurer ko euh, wan ko ni jéemuma la wor jéemuma la nax loolu tam dafa dafa baax kon nag euh, loolu laay wax ci ci ci dossier boobu. jërëjëf ko maa ngi leen sant di leen gërëm et à jeudi prochain incha allah ñu yendu jàmm jërëjëf.